alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. ndax waay jàmm ma du ci boppam bind na téere autobiographie gannaaw bu mu ci yooyu yëpp quoi gën bind na ne ba muy nekk. directeur d'école primaire ci Fatick mës na dem ziyaara ji El Hadj bi Niass ca Kaolack comme maître suufi comme maître soufi dama faa demoon comme ab soufiyanke laay seeti politique ñëw ya fi jaxasoo ba nga xam ne ñoom seen coup boobu su su réussiroon bëggoon nañ sonal ay sëriñ gaa ñu wax nañ ko yëpp passé waxoon naa fi ñenn ci yéen mais lii témoignage la parce que lu am la bi ñu bi yi nekkee Kédougou ñu arrêté leen ndeysaan fukki at ak nangam biñ leen libéré bi waal jëwjëw ak Mamadou Dia mi nekkoon ak moom ci kii bi ak sax Youssef mbay ñëw kaw la nekk kër euh, Abdou Souley Ba dafa am ku ne su bàyyi ñëwul nuyu si leen waali du dem nuyu ji ko waal joojo waal joojo Njaay doomu kawlax doomu Saloum ah bàyyi ni ñoom caag xam nga bàyyi taarixam ak waal joojo lu rafet la parce que waal yàgg na France te booba yaayam bàyyi moo ko doon dimbale wala bokkoon na ci ñu ko dimbale te loolu bàyyi def na ko ñu bari bi ñu ñëwee ñoom ñu ñibbi Dakar Mamadou Dia ci boppam nag moom bàyyi leen fa ñëw nuy si bàyyi bind mu bii nag moom yàlla dafa def ma nekk témoin ci ñaari bés ba Diagne ñëwee en tant que premier ministre visite de de travail Kaolack bàyyi dem ba résidence maanaam kër gouverneur ci côté bii ci marché bi bokk ci ñi koy teeru am na am na inspecteur bu tudd Maawa kër yu bëri dañ ko jëppi dafa ñëw di puus Baye pour mu dellu gannaaw ba marché rangi Baye dellu gannaaw di waxtaan ak ki mu doon waxtaan rek même dara xewut wallahi lazim teeru teeru Mor Dia Mor Dia ñëw na Medina julli na fa tak julli na fa bi mu duggee laa génn bi mu génnee laa dugaat Baye ne ah Mamadou Dia de wax naa ko li ma xalaat waaye wax na ma li mu xalaat moom itam ne naa ko ja li ngeen di doxal démocratie li ngeen di doxal ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal waaye nag ñi gën a bari ñoo war a am baat jullit ñi ñoo gën a bari jullit nga présentel ñu dimbale la ñu ci des yëpp am fi seen xàq mu ne xam nga lu ma tontu Senghor musuma trahir duma ko trahir mu ne mi ngi mel dama koy jàngal trahir kii bàyyi moo ko ma ne ko ba am benn ñaar ñett gàmmu gi ñëw ceetu gàmmu la woon diggante bi xaat rek ndeke seen diggante mook moog Senghor lëj na fi ndeke am na lawaale jooju waxoon ñu ci benn réunion man dama doon milité quoi ci ruq yu gën a xoot mu di ñu wax ne jotewuñ dara jotewuñ dara na di wax di lay noonu gannaaw gi ndiggante soosu rek yëf yi yàq na fi Mamadou Dia dem gàmmu Tiwaawoon ay dossier la ci Sénégal ñëpp xam nañ ko lancé fa idée congrès islamique ci Sénégal boo xam ne lii lii lii lii pour daal jullit ñi bon ñu yebal nag ay ndaw ñuy rek ñuy accueillir euh, impression kilifa yi Patrice juuf directeur cabinet Lamine Gueye président de l'Assemblée moom moo ñëwoon Kaolack ci baay ne ko président mooy moo ñu waxoon ñu laaj la loo xalaat ci idée congrès islamique bi mu lancé ci gàmmu Tiwaawoon bàyyi na ko da ngaa juum ci sëriñ yu mag yi la la ebal mu ko ah ku la gën mag mu ne ko xamoo ko waaye moom xam na ko barki dem la fi jógee te waxuma ko woon loolu ñu mag ñi lañ koy wax rek mu ne ko dégal demal nga laaj ko demal nga laaj ko tudd ay sëriñ naan sëriñ mooy kii nekk ci tëju ci néegam jóg ci sajaadaam waaye sëriñ boo xam ne lu nekk mi ngi ci fu nekk mu nga fa loolu loolu moo jiitu un loolu boobu mi ngi ci digg dooleem boobu itam bàyyi daf ko tont ajjuma ko ba mu jël ba muy salaamaaleykum rek xam nga bàyyi yéen a ngi fàttali commencé am alhamdulilah salaamaaleykum rek xaw ma Alioune Ndiaye xaw waxal du ne li ne l'islam mooy lii l'islam mooy lii di définir l'islam en maître mu bàyyi nag diine jii ma doon wax nag maa ngi laay biir képp ku ci bëgg a wax loo am am daraja na fexe ba xam ko door cee wax boo ko xamul mën ngay tagg nit fekk yaa ngi koy xas taxamoo ko diine ji ndokk bi yonent ba mu jógee xaaru xeraa ba mu yemul ci dara ma kulusam ni kon xam fu ñu jëm ñun dafa sàngu yàlla ne ko yaayol mu zammilu xum yaayol mu dasiru xum mu jóg mu ne ko wa andir ashiratika al aqrabin mu jóg mu ne ko ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi moo tax ñu jot ci dégg naa sëriñ bu ñuy wax buy dem gànna man la ñuy wax waaye sama yoonu gaana wi su naqaree ñu dul julit seentuma mu naqari jullit parce que dara xewul lu may jàkk yokku ak i jàngu ak jullit ñu yokku wasalaamaaleykum fekk yow ci wax ja dañ ci boole woon bu ñëpp defoon ni yow kan duñ soxla tiito duñ soxla kurma bàyyi ne soxla wuñ tiito kurma lañ bëgg a waxal alors <laughs> ah, yooyu yëpp ay kii la macha allah mais nag ñëwal léegi nag ba Mamadou Dia loolu may wax yëpp mooy avant Kédougou Kédougou bi mu ñëwee gars yi bañ ko bañ a nuyu jibaay moom mu ñëw nuyu jibaay xam nga nett naa la ba muy ñëw bàyyi na ko defal lii mu ne ko non léegi nag bañ jógee Kédougou gars ñi ne bu bàyyi ñëwut Kaolack ci ñoom kër du Souley ñoom duñ fa ñëw bàyyi na yéen caag bàyyi ñëw jëppal Maodo ja ñëw fa yàlla defaat mu fekk ma fa mu war a wéet ak ma génn mu génn ma dugaat xam lii kay mooy témoin yàlla ma ci boole ma ne waa ja waxaat na de donc lu wuteeg wax jëlee depuis fukki at ak nangam ma ne ah mu ne dafa ne ma sëriñ bi du ma nangu kenn ku ma gën a bëgg yàlla wala yonentam bi wala Cheikh Tidiane lu may ku leen gën a xam moo tax rek ma xam ne yaa ma leen gën a bëgg ndax yaa ma a xam xam nga soppi na wax ba léegi gonflé na tuuti waaye quand même fukki at ak benn yooyu xalaat du caaxaan moom dialogue silencieux avec la divinité la ko tuddee gis naa note bu mu ci bind xalaat na ba tey waaye waaye nag mujj na passé foofa waaw ñëw na ca jàkka ja kenn waxuma ko maatoog toog jàkk Medina wax ba ne alhamdulilah tey moom ñun ñëpp ñoo bokk sëriñ ma ak yéen sëriñam xam nañ koko sóob xam nañ ko xaal ba ko jàppoon jëdd te Moussa Ka wàcce ko xam nañ ko te ku bëgg diine la ku bëgg yàlla amul werante jasakumullahu xeyran nag seen ustaas alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah